tey dañu xaatim loo xam ne tey yaakaar nañ ne njëriñ rek lañ ci gis mooy tey fexe ba développer le made in Sénégal euh, xaatim nañ ak PAMECAS ci côté uniforme yi jëmale ko ci éducation parce que bëgg nañ tey xale bu nekk la ngay sol ñu liggéeyee ko Sénégal defee ko Sénégal ay doomu sénégalais def

dinañ produit uniforme industriel dinañ produit tradi moderne dinañ produit sport dinañ produit ay blouson tey on peut faire pratiquement à Londres plus de 9000 pièces quand je parle 9000 pièces mën nañ ko liggéey par jour. partenariat bi nga xam ne tey xaatim nañ ko diggante PAMECAS ak Afritex dafay wane rek engagement PAMECAS pour l' entrepreneuriat sénégalais parce que dañu gëm aussi patriotisme économique. li fi nekk ci entreprise yi nga xam ne ay PME lañu wala ay entreprise yu yu yemambaay yi Boko xeyma tollu nañu ci quatre mais ñu bëré ci ñom soit dañuy autofinancer wu wala ñu dem séti séni mbokk ñu daal di leen financer ñu ci bëré amuñu financement au niveau des banques ñun ñu jàpp partenariat bi nga xamné ne nañ ko tay ak Afritex opportunité la pour PAMECAS mu daal di accompagner entrepreneur yoy nga xamné dañoo nekk ci biir réew mi di employé ay sénégalais ay sénégalais taxawal ko ay sénégalais mom ko nga xamné valeur ajoutée bi nga xamné dañ koy créer fi ci réew mi lay lay lay